suñu avenir dans yeewi yeewi askan wi euh, kenn xamul li xew ëllëg kenn xamul ko su conseil mooy que comme ni ma ko waxee sànq nous continuons à rester dans la coalition yeewi askan wi et nous assumons encore une fois notre décision à aller participer au dialogue national quand il s'agira un jour de discuter que ne yeewi euh, taxawu Sénégal dafa war a des dans la coalition yeewi askan wu pas on pourra répondre clairement mais en tout cas ce qui est euh, ñun xamuñu waaye yooyu aussi xamuñu parce que jusqu'au moment où nous parlons nous sommes dans les lignes de la charte de la coalition Yewwi Askan Wi parce que la charte aussi mu dee ñetti ligne xam naa ñaari lignes yi ñun ñoo ko bind donc la charte est sur nos tables et nous le lisons tous les jours et jusqu'au moment où nous parlons et je vous invite à lire la charte de la coalition Yewwi Askan Wi jusqu'au moment où nous parlons a où on peut considérer que la coali la plateforme Taxawu Sénégal dafa enfreindre euh, benn ci objet wu charte de de la coalition Yewwi Askan Wi su la neexee nga li rak ko quand on quand on parle de de compromis et de compromission c'est-à-dire des dañuy dañuy dañuy dañuy jouer sur des mots yu nga xam te ne en réalité sens bi ñu leen di jox bokk ak le sens qu'ils ont parce que quand on parle de compromis et de compromission dafa mel ni comme si ñun dañu ne le président euh, Macky Sall bàyyi ñu bokk élection yow xëñ na en retour nga ñëw nga bokk élection comme ñun wala ñu ne le président Macky Sall bon dañuy ñëw waxtaan ak yow parce que xëy na objectif bi mooy après nangam ak nangam. alors mën naa bokk rek. moom loolu la wax de alors que alors que ñun non non non xëy na loolu. loolu xam nga <laughs> Sénégal léegi Sénégal moom. xam nga Sénégal li ko li ko yàq mooy euh, y a des y a des néophytes politiques. Mhm. Euh, qui ont intégré le champ politique et qui aujourd'hui euh, pensent ko ñoom il doit tout le temps s'ériger en donneur gis nga Aïcha mm. nous de de la plateforme Taxawu Sénégal on n'a pas de leçon à recevoir de d'un quelconque acteur politique xam nga lu tax parce que ñun bu ñu duggee ci politique on a été formé à l'école du parti politique ñu jàngal ñu c'est quoi la politique école du parti moom amatul c'est c'est waaw jàngatuñu yaakaar naa ne ñun ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu wanee ginnaaw loolu xëñ na la la école du parti jeex jàpp naa ne loolu mooy expliquer aujourd'hui que une coalition comme Yewwi Askan Wi ak envie bi bu mu am une coalition qui a réussi à faire basculer un parti au pouvoir euh, à l'Assemblée nationale mën a transformer wu en un mouvement de soutien pour faire plaisir à personne jàpp naa ne xëñ na ñàkk a am une bonne culture politique mooy expliquer loolu mm-hmm. encore une fois nous on n'a pas de complexe à se faire à être dirigé par quelqu'un comme Ousmane euh, par, comme par quelqu'un comme euh, Khalifa Ababacar Sall parce que c'est quelqu'un qui en étant très jeune l'a occupé des postes de responsabilité c'est là kii crie haut et fort aujourd'hui à son âge jàpp naa ne ñu bëri xamuñu leen woon